dal leen ak jàmm ci leeral tv point net tey ñu ngi daal di xëy ci xëtëb gu njëkk assemblée nationale gi ni mel gannaaw ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré di bëggee proposer ab loi rek gi ñu daal di woowee népotisme naka nga xamante ne bu amee rek dafay daal di tere lépp loo xamante ne daa tax ci président lu mel ni rek daal famille wam wala ni ni mel kenn ci ñoom du am nomboy tànk ci gouvernement gile loolu daal la daal di bëgg ñu daal di xamle guerre gi nga xamante ne daal mu ngi dox ci diggante Mimi Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar mu noona ñuy daal di xam ne rek daal Mimi kat daal accéléré na la cadence gannaaw gi ñu daal di sukkandikoo ci yéeni kaay gi ni mel ñu daal di xam le kat daal ab muy pencum ndaw réew mi limitation de fonction gi ni mel nga xamante ne président kat daal lépp lu takk ci moom maanaam ab njabootam duñu mës a bokk ci gouvernement gi le muy kii muy keneen itamit di daal di ñëwaat naka noonu ñuy daal di xam le rek daal proposition de loi gi daal ñu ngi xoor en lay daal di doxalee bu fekkee dañ koy nango sol duñ ko nangu wala dañ koy voté wala duñ ko voté mu nekk rek daal li nga xamante ne moom mooy ab gi nga xamante ne rek daal leeral amal na ko moom Mimi Touré rek daal gannaaw digganteem ak président de la république mi nga xamante ne daanaka ñu bari yaakaaroon nañ ñi moom mii mooy nekk rek daal président gi nga xamante ne day jiite pencum ndaw réew mi lee waaye tamit ñu teg fa keneen depuis boobu ba tey daal moom mii ci boppam dafa daal di gedd ba noppi tamit guerre gi nga xamante ne mu ngi koy woote digganteem mag Macky Sall waaye yemu ca ak benn bokk bokk yaakaar yëpp ba tax nañ ñoom sax taxawoon temm ne na leen delloo li nga xamante moom mooy seen vote gile ndax moom mii bu fekkee nekk na li nga xamante moom mooy député yi taxaw nañ temm ne loolu kat du yomb ndax falub député ak ñu am li nga di bëgg ci Aminata Touré Milé ba tey rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral pare ñu àddu ci dund gi nga xamante ne daanaka Macky mi ni mel taxawoon na temm rek ngir xeex loola naka noona ab commission ngi ñu daal di woon taxawal ngir xool ab saafara ana itamit yan proposition ñoom lañ daal di joxe te itamit commission googu itamit livré na li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ci gouvernement gi la ngir xool itamit nan lay daal di demee ñu daal di xamle mbir mi kat daal daa taga témbee ni ngi mel ni ceeb diwlin suukar luwaaye lépp loo xamante rek daal daañeel dundin gilee ñoom kat ci seen bopp ut nañ ay saafara ca loola ba noppi tamit xamante ne moom mooy chef de l'état ñu daal di xam ne rek daal Macky Sall ci boppam ñu daal di fàttali dong le 27 septembre bi jàll dafa daal di woon rek daal toog ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq mbir ma waaye képp koo xamante daanaka da ngay yëngu ci mbirub njaay wala sax njënd mbirub rek daal loyer wala leneen loo xamante ne rek daal daa ñeel mbirub dund gilémel toog naak ñoom ba fële ca palais de la république daal ay décision yi nga xamante ne jël teg nañ ko ci seeni loxo ba tax na lu ci mel ni rek daal ay proposition quinze proposition yi nga xamante ne tegoon nañ ko ci table gile ngir rek daal information ñoom daal nañ daal di taxawal tém ngir rek urgence gi ni mel muy loyer mbirub location gi ni mel suukar ceeb ak li nga xamante rek daal moom moo ñeer fourniture scolaire yi lee ak njàngum université gi diwlin ak lépp loo xamante rek daal daañeel mbirub yàpp ak muy volaille ak bétail waaye ay farine ak dugub ak ni ni mel ak ndox lépp loo xamante rek daal daañeel itamit mbirub euh, poisson maanaam jën ak fer ak béton ciment ak télécommunication transport lépp rek daal loo xamante ne dafa ñeel dund gi lee dañ ko daal di tax taxawal tem ngir rek daal wax ci ni ni mel waaye euh, ñoom ci seen bopp rek daal amuñ benn temps gi nga xamante ne dañ ko daal di perte ndax commission yi ni mel nekk rek daal dafa am ay personnel étatique yi nga xamante ko dugal rek daal ci mbir ma ngir rek ut ab solution waaye ñoom seen bopp gannaaw ñu daal di toogee bind nañ ci lu ëpp rek daal téeméeri page ngir rek daal solutionné ni ni mel jox ko ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi ñu daal di xaarandi rek daal ana yan décision addu ci ki nga xamante ne moom mooy euh, Guy Marius Sagna ak FRAPP mi gannaaw daal gi ñu daal di annoncé ab euh, manifestation gi ñuy am rek daal ci buntu l'ambassade de France ngir rek daal xeex li nga xamante ne moom mooy euh, contre mafia de visa yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp dañ koy daal di bañal yenn sénégalais yi mu doon lu metti lool ñenn ñi tamit dañuy laaj xaalis gu bari te dara du génn wala sax ñi nga xamante ne dañuy laaj visa te amul dara loo xamante rek daal da ci daal di du am benn njeexintal waaye frapp ci boppam ci njiitalub Guy Marius Sagna ñu fàttali dong ci fan yële ñu jàll rek daal bëggoon na dem fi nga xamante ne moom mooy yaa ah, mbaxsat ga ngir rek daal lu wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk waaye tamit ngir xamal leen ne ñoom lu ñu nekkee du dëgg du yoon waaye nag dañ ko daal di woon lee gannaaw itamit mu daal di génne ab communiqué di daal di xamle rek daal lu tax ñu bëggoon def loolu muy waa France respecté wuñu kenn rek respecté wuñu surtout sénégalais yi nga xamante ne rek daal dañoo bëgg tukki ci seeni réew ba noppi itamit ñu jafel leen ko lool te loolu teguñ ko fenn naka ñu daal di bëgg rek muy taxaw daal ab euh, sitting gi nga xamante dañ ko amal naka jeudi ji muy le octobre ngir rek daal xeex li nga xamante moom mooy mafia des visa loolu daal lañ ko daal di tudde ñu daal di xamle l'ambassade de France fii ci Sénégal gannaaw moom ñu mu daal wax nag daal vol des africains itamit humiliation gi ñi daal di amal waaye tamit eh, confisqué pendant un mois ay passeport yi nga xamante ne daanaka amul benn yoon fi ñu koy daal di tekk wala sax daal ay trois semaines li ci mel te loolu sax daal du am benn njeexintal naka noona ay financement di projet fii ci Sénégal te itamit seen i xaalis dong lañ koy daal di arnaqué te lool nag daal dañ koy daal di taxaw te mu ngir xeex li nga xamante ne moom mooy mafia visa gile te loolu kat daal ñoom nee nañ lépp daal supervision gouvernement Sénégal bi yëg na lépp ne ci pat naka noom ñeem nee nañ duñ daal di seetlu ni tax na ñoom kat daal dinañ daal di taxaw ngir xamal ni ni mel ndax lu ci mel ni 32000 demandeurs ay visa ba tey jii depuis 2020 amuñ ci benn njeexintal te loolu dafa war a jeex fii ci Sénégal ba tey rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral point net fële ci prix yi lu fa daal di xew muy mieuxin gi nga xamante ne maanaam noddukat gi ñu daal di woon rey rek daal dóor ko ba mu daal di ñàkk bakkanam rek daal ci ab bâtiment bi nga xamante ne bëggoon na ko tabax daara ak euh, juma waaye tamit ñu daal di ko dóor ba loolu daal fekk ko ca ñu daal di xamle rek daal mbir ma kat doyoon na waar bu baax baax ba tax na ñenn ñi tamit jàppoon nañ leen ba tax na tamit l'enquête ga ginnaaw gi mu daal di wéyee xam nañ itamit dafa daal di xew ba tax nañu gën a bari tamit li ñu daal di àddu rek daal muy ki nga xamante ne moom mooy jiite ga muy rek daal commanditaire ga muy imam ga ak euh, ki nga xamante ne chef de village ga ñoom kat daal bu moytuwul kasob giiru dund moo leen daal di yot ndax ñoom nee nañ ñoom ñii ñoo daal di jiite ni ni mel dem ba noppi tamit toj ko waaye tamit agressé ko ba noppi dóor ko ba rek daal mu daal di ci ñàkk ba kanam mu doon lu metti lool waaye nag ñi nga xamante rek daal ñoom la daal di commencé ndax menace gi yàgg naa commencé waaye ñoom nag dañoo daal di xëy rek ngir bëgg daaneel li nga xamante ne moom mooy bâtiment gilee waaye tamit loolu doy na waar ndax itamit tabax jàkka dong ana lan moo ci indi door ba faat waaye tamit dañoo wax ne ki nga xamante ne moom mooy noddukat gilekat daal dafa bëggoon rek daal tàkkali dëkk ba ba tax la bëggoon rek jama boppam waaye loolu nag daal dafa daal di amee ñoom ci seen bopp ñu taxaw temm te avertir nañ ko nekk itamit lii kat du fi amee te na ko dindi moom nag mu daal di bañ dong ndax maçon la ci boppam mu bëgg tabaxal boppam ni ni waaye nag ak xamante ne rek daal ñoom ñoo jiite juma ji lee ñoom naka daal ñu daal di taxaw temm ak chef de village ga gi rek daal bëgg daal ci moom toj bâtiment gi noppi di tamit xeex ak moom ba ak njabootam ba moom sax daal mu mujjiti daal ñàkk bakkanam mu doon lu doy waar lool